mooy laal payam jigéen joo takku moomuloo ko de mu ne lu ñaaw la yoon wu bon la te yàlla gàtt na ak jaaroo juróom benn jikko yatti yaari ca yatti ca àdduna yatti ca àllaaxira ca àdduna fokk yàlla añ ko wërsëg ba mu ñàkk fokk yàlla ñaawal ko ba mu gën a ñaaw képp ku ñaaw dana ko tegi jàngoro joo xam ne moom rek ay daj mos jëli jàngoro loolu mu gën a màtt la ci njaaroo ca àllaaxira nag yàlla dana ko mere waaw dana ko gisaab gisaab gisaab ba noppi lakk ko ci safara rek ñooy fii di seetaane boo bëggee daal takkal rek wala taqtuloo bu leen rey nafsa bakkan la fi bakkan ba nga xam ne xarama la xaramal na ko yàlla daa bi daate la rey ci tëdd rey sa doom rek la waxoon naka noonu bépp bakkan pour rey bakkan laa waxee rek man ku dila ku reyef na ko ma sama nit muy kuñ tooñ parce que naa def noonu li wal yi ñëw aji doonam jël sama aw lay wala ci jéggi day fi tàlli ci rey ina woon naka moom kan moo dañ mën soro jikuñ dimbali leen boo xamee ne rey ci rey na sa mbokk may nañ la nga fayu rek te yàlla dina la dimbale bul xëppal nag ba rey lu xëpp waaw kenn kenn reyal nañ ko dana bakkan bul ne man danaa rey fukk de wala taqrabu bu leen jegeñ maala yatimi judi jidim jur ak jidim bul lekk xalali jidim daa bi lati dara ca jikko ja nga xam ne yee moom asanu moo gën a rafet ata yob du xafel bata mu jote asisto dërëm waaw boo matal leen sidaa di ci koloré boo xóoloon teg yàlla ak boo xóoloon teg nit ñi inal xaada naka koloré kana mosu ma dañ ma soron di lu ci laaj de waaw boo matal leen alkaay am natt yi daa dem natt ngeen aussi noo peese leen bés taase ci fastoon almustaqim bari aj ci daalika loolee xayr nu moo gën baax sanu te moo gën a rafet taw yi leen ci delluwaay leen wala tax bul topp su maalee saraka loolu leen ñaane bii coomeel mën xam-xam bul topp loo xam ne xamuloo ko inna sama naka dégg wal basarak gis wal fuada xool kullu ulaayika képp ci yooyu de yàq xana ma suma dañ soron di lu taagaan waaw bu wax loo xamul bul ne dégg naa te dégguloo bul ne gis naa te gisuloo bul ne xam naa te xamula nopp bi daañ ko xisaaba lëg bët bi danañ ko xisaaba lëg xol bi danañ ko xisaaba lëg wala tam ci bul dox fi lar li ci suuf maraan gi dëkk ga bul dox ci suuf di daagu di tumfang tumfang yi di paap singa lépp bul def loolu de naka naka yow dan sax rek a xot ci la lar da suuf loolu rëy béylu soo daagu daagu waaw mën na ci suuf si dara mën na koo xotti ci kawam rek ngay dox te moom jaam yàlla dañu kanim toroxlu de yàlla wala n tablu xa jotti la ak bala daje toolen gudd doo si këli si këli ko yëngali mbagg man laa su ba mel ni doj ji kon nag jarul suñ këliku jarul day de te doomu aadama war tanay di kanam boromam de doomu aadama jël teenam lal la toxam man yu rek ku nekk seexlu ko mu jëm lal lépp mu nëpp rek ku nekk seexlu ko ña ko gën a bëgg ñooy gas suuf denc ko ca balaa nëpp seen yox ci diggante bi toog ay tojala ngi ci itam kooku ana lu mu rëy loo kullu saalika képp ci loolee anam fa dañ day yaatante ak ñaaw en rabbi dafa borom sa makroo di li te yooyu yëpp lu ci nekk lu yàlla bañ la ñaar fukki jikko la ak juróom fukki yeeg ñeneen te tëgg na ko tëgg tere ak gànn tëgg ko tëgg ndigal loolu mooy sariatu bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam de moo tax mu ne saalika loolee naa awxa aji nak la jëla wayu na ko yàlla ilayka jëm ci yow naa awxa aji nak la jëla wayu na ko ilayka jëm ci yow rabb ko borom sama yàlla yi ma di ci xam-xam bu jëriñ de wala tajal bul def ma la ndaga day ila an yàlla axara jeneen mu baa mu rob ci xiyoon nag ma ci gën a tëgër a soo soo def na sani de ci jaanama ci jaanama ma lowoon tin moye guñu yàlde wata waran tin koy ndax gërmande yàlla afa alfaaku ndax dana jagle leen rabbukum borom seen bin bani na ci doom yi góor wa taxa sam jàpp moom men malaayka ti ci malaaka ina sanu jigéen yéen doom yi góor rek ngeen bëgg am ngeen doom yi góor man yàlla mi maye man ma am doom jigéen loolu mën na nekk nekum naka yéen la taxuloon da ngeen wax aw dan wax na si man di aj rek seen wax rëy na lool de xanaa yàlla kay amul soxla ci doom waaye demoon tey am doom itam xanaa doom góor la war a doon waaye doom seen seen bañ man moom ngeen mooy moomale wala xam taraf naa nun day den nanu fi alquran yi ci la alquran lépp ci léeb yeeg dël yeeg dëkk yi yee sakaroo gin nañu waadu commencé si dum dooli si mu leen i laanu fooran la rek daw dëgg de qul waxal aw kaana doonte nekkoon na maa waa ndak yàlla alihatna yàlla kama taquluuna naka ñuy wax isan booba de taxaw kon te ñu sàkku ila si la arsi jëm ci borom xaras sabilan yoon wu jëm ci xeex ak moom de yaari yàlla mënul am li nga xam ne jant jigéen mënta nekk diggante yaari jëkkër yaari jaas mënta daje ci menn mbat yaari yàlla mënta boole woo benn xaalam de mënul nekk su fekkoon yeneen yàlla nekk fi ni ngeen wax xanaa kay bi ñàkk bés mu mer ak yàlla ci fi nekk ñoom ñaar ñu xeex fi yaari yàlla nekkoon fokk yaari yàlla yooyu dinañu xeex bés buur yaa day fi nekk ci xeex lañ dëkk kon nag mosu leen a dégg ñu ne kenn takk na xare jëm ci yàlla kon nag dafa amul jeneen yàlla de fi jeneen yàlla ne woon dana xeex ak yàlla de te su fi jeneen yàlla ne woon ba xeex ak yàlla xeex bi nii rek lay mën a mujj kenn ci gàñe ko wala ci ci gàñe morom wala kenn kenn dana ci gàñe morom te ci kenn gàñe morom ma te ñoom ñëpp yàlla lay liñ gàñe moom lott na lu jaadu ci kem rek jaadu na ca kem ba ca des kon yàlla gii ñu dàq tey ëllëg ci tey ëllëg ba ci des it mën naa am ëllëg ñu dàq ko tey kon yaari yàlla yëpp ñaar ñu lott lañ te ku lott mën da doon yàlla kon nag yaari yàlla mënul xam ne jenn yàllaa fi nekk su fi yaari yàlla ne woon benn yàlla bi dana jaam bi dafay toog kenn ki ne ko dee dafay jóg dem ki ne na yëngatu ki ne na daal ki ne na dund ki ne na dee ki ne na nelaw ki ne na yeew yooyu yëpp bi ngeen ko gisul war ngeen a xam ne jand yàlla fi nekk de subhaanahu sama xelam wa taala tamu ko waxe xamaa yàqoona ca la ñuy wax ma lugan a kawe kabiran ku de aji màgg rek sab diwu dana sabale oo ñeel yàlla sama waat waa samaani saba yedi juróom yaar wala suuf ba man fii naa ak ñu nekk ci ñoom de yéen day yéen ay sàkkal yàlla bokkaale ak di wax moom du joxe lu waaye boo dem asamaani juróom yaar ak suuf juróom yaar ak li tampo ci mbindeef yu mooy nit ak jinne ñooñu day sabbal seen borom rek ak di ko màggal mooy seen liggéey ci teg ci ne nag ñaar ñu dëjër lañu ñoom ñoo fi nekk di wedd yàlla ak wax am de way min shay'in déet lëf daay sab dara bu dana mu sabbal bi am di tam tam amul dara nag loo xam ne yàlla sàkk na ko lu mooy dafay sabbalal yàlla walakin lu fi nag daa taf xawoon dégg ci seen parce que yow ma sabal seen waaye yéen mënu leen a dégg sabbal yëf yi de yëf yi sant lañ bu nekk ci tudd yàlla la taxawee amul lu taxaw lu mooy ci tudd yàlla la taxaw ñaar luñ bokk benn tudd benn tudd pencee yaari yëpp moo tax tudd yàlla yi amul dayoo naka jëm yàlla njëñ amul dayoo tudd bu nekk nag ci ndéef bu nekk nag ci tudd woon taxawee kooku mooy sa balam di la wan ne ñaar luñ bokk benn tudd mooy wàjjut ak doom doom su wàjjutam fokk ñu wuute ba boo leen gisee rek xamee leen lu tax tur yi nekk ci kii ak wa nekk jëkkale du benn yaari mbokk luñ ñi doo ñi doo fokk ci wuute ba nga mën leen a xam ne ndax feeñ ci kii ak tur wa jëkkale bokkul ata ñaari feppi suuna sax waaye boo rekk dendale fokk da nga gis lu ñu wuute de ndax fi def tajëlii ci bi de pepp ak tur wa def tajëlii jëbalee du benn def du nekk nag tudd wam taxawee moo di ak sabaalam yéen nag mën leen a dégg lakki ci néefi ci des boo dee fay firi dañuy wax ne yàlla dafay bind ci ñoom roxo ba ñu sabaal waaye loolu na rek def du nekk ma ngay dund ca dund ak yàlla ga te moom xam nañ ci nit ñi ñoo xam boo yonante bi ko jur bi daal si jotal mu ne lu yàlla bind xam na ma lu may lu may way dajale ci rek way dajale ci ne rek ñoo ñoo ma xam ko walakin lu fi nekk laa tax xawoon a dégg ci leen tas teewum sabal seen ina woon ko moom pour kaanama suma dañ xaliman de aji xem bugal aforon de aji bay bakkaat de bay sa xaraata dem jàng nga alquran alquran yaa naanu def bay na ka diggante sa ba bay na da dina jàpp diggante ñaaña daa yoo mi ne gëmuñu bi laaxar ci àlaxira jaaban ci daay askoron bi de aji sutural te baa ngi mel ni isma fonte isma faane la boo jàngee alxuraan yàlla def sutura sa diggante ak say noonu de ñu bëggoon a boom yonantu ba ba ñëwee ba tiim ko gisuñ ko waaw yàlla wax loolu de ba jaal naa def noonu alaa quluubihim ci xol seen ak na seen ay muuraay an yaf xaw ñu dégg alxuraan de wa fi asaanihim ci noppi seen wax ran ak tax boo yaa sakkar ren dem su nga rabaka borom tafil xuraan ci alxuraan wax doo mbir mu aji wéer taw ñu dëdd alaal bari gannaaw seen bu foron ñu ci way daw dana nun aalamu ñu aajo xam ci maa yestamiwoona danañu déglu bii ci moom yestamiwoona danañu déglu ileeka jëm ci kaw way sum ba na ba ñoom nañ waa way dee lañ yàqulu ba dana wax zaali mën a way tooña tabiwoona deen kenn di topp yi laa rajulan dara waaye ak foron ci di ci njaaxam telam mooy Muhammad suur seetar kay fa tara boo aka ñu defal aka ñu ala lam sall leen fa dalloo tañ réer waaye waxaaloo wax nañ ñoom way weddi dekk ne ay saaku naa dem nekk nañu xeesaaman di yàq xurufaatan te di wayu funak inaa naka nun la ma foo soxla ñun dekkal la ñu xalxan bind jalli dan bu dee aji xeer gannaaw buñ dee ba yàq yu funak yàlla mën nañoo dekkal kooku mënul nekk pour ne xul waxal koonoo nekk rek gaaratan toj aw xadi tan te di weñ bu ñuul aw xalxan kenn bi dee bi ma yàq pour dana dana mu rëy fi sori xottal waaw su ne boo di toj su ne boo di weñ bu ñuul turé rek jën nekk leen waaw yàlla faalewu leen du tara rek yàlla dana leen waaw dana leen dekkal waaw dana leen hisaab de te sa yàqoon na xam nañu wax man yooyu duna dana am ay amee ko dana mu dekkal ñu rek waxal da si kàkk fat rek suñ dem wala ma rek yéen te nag yoon te nekku leen woon di dara te leen sosoon te nekku leen woon di dara ma leen di dekkal gannaaw bu ngeen dee rek yéen sosoon na am na yow yëngal tey ka jëf teewro mooy ba yàqoon na dañu wax ma taa waa nag ak njëkki nag waxal xasaan yàqoon na amaana bu mu nekkat xariban di aj jege yow ma yar mookum seen ko dana moo wax leen ngeen fi ci seen bàmmeel a bir taxawee yéen jaxi sox yi le yéen jax jax yi le yéen kawari saaro yi jóg leen waa ay tamit yéen kenn di sax jaadi nañ sax xale dara aji ñëw de te keroon kenn këpp nekk defe ne benn bés la am jaadi na waxul waxal leen baa di ñaara jaam sama yàqu doñu wax di la tii baa yàqu doñu wax ñaari yëpp rek am na tii baa ba nga xam ne yow moom maa na rafet dina seetaan naka seetaan yéen sax dana mu yàq fay na mu diggante seen te seetaan naka seetaan kaana mos moo dañ ak kon ci noonu ci bi sori sani ñeel it rabbukum borom seen baat prophète baat ko kat alam maa xam di ci yéen yeesa ndem soob nam yaram bu yaram leen bay yeesa ndem soob nam yaa si dugal leen de waaw éfartoor rek dañ ko wax yaa si loxol yàlla nga nekk bu ko neexee may def bu ko neexee mu xalak la waaw nga dem safara de comme arsal naa ko yónni mu saali ñoom wax yéen ngay aji mënante leen de wara bu ko borom saala bu maajo xam man ma waat ñu nekk jaasmaa ne juróom yaar wata leen si juróom yaar wala xatasal naa wala yi gënal nanu waaw nabi na leen yéenante ala baat ñenn de di ko yéenante yàlla Moussa xamee ba yàlla jagle ko wax ja Ibrahim yàlla jagle ko xarit Muhammad yàlla jagle ko rañaan ma de baaxee naa jox moom daawada daawada saboor saboor daawada yàlla wàcc moom téere saboor bul waxal doo xooleen alla dina ñaaño saam na ngeen ay yàlla tañ ñun doo nii lu yàlla wala yam li ko nam moom ci ñu sa saboor yi duñ ñu lor an poliseen wala sax wi dan di jàgg na sab yàlla lañ ñun doo nii lu yàlla wala yam li ko nam moom ci ñu sa saboor yi duñ ñu lor an ko poliseen wala sax wi dan di jàgg na sab ci ci tur yéen walaay ka ñoo la gaali dina ñëw di ñaan yàlla danañu jaamu leen te taxoon danañu sàkku ila rabbi jëm ci borom seen alwasila tak jot di koy ayum kan ñoom aqrab moo gën a jege ñi ngeen jaamu ni ki malaaka yeeg ñee sax ñoom ñaanu yàlla du way lu leen jegeñal yàlla de waaye gën a danañu yaakaar rahmata wa yermandeem waaye xaafu na danañu ragal xaar ba bëlam ina saab rabbi gën a bu ko dem borom sax kaana mosuma dañ ma sooral di lu ñu ragal way min xareetin yéen ab dëkk ilaa naxanu dara mbir moom dun yàlla mu ni ko waaway xaarak lan ko xam ne yowul xiyaamati ci pencam yàlla waa amul benn dëkk boo xam ne dana fi def yëpp te yàlla yi waa alak de ci tukki del àddina aw maa si waa i gaa ji gole leen xasaaba ba sal na mu daaji sat kaana masa dañ saalika loolu de il kitaab ci lawin ma fos ma soorali suñu bind de ma mën a tere wu naan ko tele bu ñu yónnee bi laa yaati ci kaw yi ngeen tàkk daan ka saba ndare bu wett bi ak ñoom la waroon way jëkk ña de laaj jëli kaw yi joxuñ leen ko waaye jëkk laa yoon bu jëkk bañ leen ko joxee dañoo weddi woon ñaalawi leen kon nag yéen leen ko joxee du ngeen gëm da ngeen di wet ngeen weddee ñaalawi leen def binam yonent bi moom dafay mag du ñaala tam de waaw dinaa jox nañ sa moda sa moda naa xata gi dem mu sira tan mu yaaj sidde parce que la moo dañu weddi di yaa ci moom de comment nu siru bilaayaat kaate yi laa tax yi fa dara ngir ragaloo de kaate yi yàlla yàlla feeñ su demee ni jàpp jant bi ak manu yi waa kooku yàlla soo gisee mu di ko yebal ay jamono ay jamono bëgg kenn ragal yàlla bëggam de ba suur jàngatal xul naa ban waxee daaka ñaan la dina rabbaka naka borom sa aata léem na financé ci nit ñi yàlla léem nañ képp comment jaal naa def nuru gaa gi sa si gaakaare naa ko war nan la ko daa fi na tara na tuddi naa si ñeeri borom makka yonent bi yàlla yonent doon waaw yonent bi waaw bu dig rañaan ma waaw du yonent ak ngelaw gis la waaw bam gisee jaanama na gis nañ ca saxoom garab sax jaanama waaw na nga tam moom dañooñ safara di lekk abo jaar ci saam ne dégg leen waaye Muhammad diñ teen ñu leen di tëkkoo safara soo xam ne fay lakk doj léegi mu ne garab ak cay sax waaw daal di woo ab jëméeram daka wax naa moom ca nee ba ne ko mu ne indil ma saxoom rek na nga dël tàndar ma ba mu nooy nga def ca def ca lem waaw nga indi de waaw naka ne yonent moom itam lañ ci tëkkoon saxum naa leen leen léegi saxum ngeen xam na mel dañ ci def saxum yi nii dafay indil ma saxum jëwér ba daal di indi waaw andarma ji ci lisaale dër ko ba mu nooy boo leen tax xaq bi dem mu indi waaw leen saxum bi leen moom ma di tëkku ko mu seet kaa ñu ne lii dañ mën a jëwee yàlla de loolu la ci jubloo nag ba sabti guddi wa sajarat ak garab ga almalhoona te dëgër kat yi ko ñu rëpp fil quran ci alquran sunu xaw foofu sañu ragal loo leen comment est-ce que dum doli ci mu leen laa soxyaan na rek daw kabiran ku aji màggaleen parce que jàngatal gis ko naa ban waxee leen malaayika ti ñeen malaaka su si doo sujjoo leen li aadama ñeen la aadama leen ba tax jadoo tañ sujjoot ilaa iblisa ndara iblise xaala wax na mu ne ah sidu sujjooti ma li man xalaata yàlla nga bind ci nan muy bante xaala wax yàlla araaytaka solo ti dama asa xaala wax iblis ne araaytaka solo ti dama asa ladi asa kile ladi kaaka karamta yonal nga toxalee ci sama kaw tey naa xartani wala indem yéexee nga may laa taamati ba jëppeñ tam yàlla daa sandi kana danama faagaakal duriyet ko waaye doom tewloo de daa xali dana raa ji ni yow xaala wax yàlla isab demal faman tabe naka ko topp na wala suñ ci ñoom te jaanama naka jaanama gisaaw ko mari koy sa gisaan te ma fara wuri buñu matal rek wastafis kutil mani salaata ko gaatal ñoom ñoom ci saw tika ci baata yàlla ne ko yàlla ne iblis ba yàlla def dee iblis ne ko demal yaa kala topp safara nga jëm mu ne ko jox nga yonent bi lu muy wootee jëm ci topp yàlla noddekat yaa ngi nodde man nag ana naka laay nodde mu ne ko buddi leen ci ay way ak xalam ak lépp ko moo xam ne dafay woon jëm ci mooy yàlla nodde iblis a nga way xaajuraale ñoom ci xayli ka ci naaru góor sa wara ci ka ak liir sa ci xayli ka ci kawar sa wara ci ka ak liir sa na nga na nga xaaju nit ñëpp woo leen ci mooy yàlla ci sa kawar ak say liir a saarikum fakale la ñoom fi la waali jub jox na yonent asaka yow jox nañ la riba ak daan jël ak taj wala walaat yeegi doom jox nañ yonent sallallahu alayhi wa sallam ay doomi yoon yow jox nañ la doomi jaarooy waaye ne duum dëlal deen neen dekte amut saal amut wama yene duum dëlal deen seytaanu seytaanu yi daa xuroo dalay baatil de waaye lu mën a am nag pour naka inna baadi nakay jaam sama te sa lakkat yet ñaa la alay ñoom tout am kattan waaye doo am kattan ci samay jaam rek dafa doon birab ci borom wakki nan ci wakki li bi gën ci moom rabbukum borom seen te si mooy kaaka gis ci dana moom manque lak ñe leen asuka gaali bi bari ci géej sa taxaw ngeen na ngeen sakk min fadli ci yomb ba ne woon naka moom kaana mosuma dañ rahima di aji jaram yéen de way daa masakum dem jot na leen pour tattat bil bahri ci géej ba ngeen ragal la wal da faddu man sa doona ña da ngeen xooleen daay jaaw pare yàlla wala maa na jaakum bam solee leen seen bari ba ca jëri ja aral tum ngeen tëdd wa kaana masa dañ leen saanum yéefar ka forandi wee di agoon xewal ak borom de afa amit tum ndax da ngeen xóolu ay yaxti fa mu nuur rabbi yéen jaani fa bari ca wàllu jëri ja yàlla ba nga jàqee ci géej ga nga xoo ko ba noppi ba mu la jàllalee nga fàtte ko xanaa nga fàtte ne su ko neexoon tuural la ci suuf am nuurale woon Haaruna afa amit tum am da ngeen xóolu waaw aw yurti day kem xiraaleykum ci yéen xaasiban jambaraay wala mu taw ci ni doj mu daal ta jidoo topp sëkk si leen dakum ñaa leen watti leen aji wattu ama amit tum am da ngeen xóolu ak ñoomee rek mu delluwaat leen fii ci géej ga taaratan yoon uxraa weneen am waaw weneen yoon a ngi fi mën ngaa géej dellu dugg ci géej bayu ti la tam xiir alaykum seen asifan aji tam sinari ci raw yi yoxi xakum tam labal leen dima kafartum ca la ngeen dandi wala taji doo sab sakk si leen akum leen ale nag ñun tabeen aji fapre wala xat karam naa nun day gënal bani aadama doomi aadama yàlla gënal na doomu aadama ba jagle ko xam-xam ak wax ak taxawaay ci jub a waxam naa um waral nan leen gis bari kéeri woon bare géej doomu aadama rek a jagoo war li kéeri dafay war li ci géej dafay war wara sax naa um an wartaga leen ñe tay baati way tey yam ñam yu neex la leen yàlla leyal ba bokk ñoom ci nga xam ne ñax rek lañuy far fadal naa am gënal nañ leen ala kasiri ci aji bëri man xalaat naa ci ñu bind taf di leen ak gënal leen yow ma yàgg na dama des ba danañ xoo bu lewu naa képp ci ci diimaam fi seen imaam feen des ba nga xamee nag ne waaw ku nekk ñu ngi koy xoo waaw xeet Muhammad waaw xeet Moussa mun ootiyee ko joxem ne ko kitaaba téere bi yami nii ci lay joram gaay ka ñaare gaay taxaw na dañu jàng kitaabam cërësit wala sa mën a defut wàññi leen fatiral jàmp waaw buñu ak saalak dal na ma rek ko man kaa na ko nekk na fi aji ci laa dina amaa di aji silmaxa o moom ama ji silmaxa la mu fi laaxira ci àlaxira rek ku bañ a gis alquran ci àddina waa laaxira bu sa dekkalee moom da ngay silmaxa rek waa dalu sa gën a réer sab di leen ci yoon wayn kaado naka jege nañu wàcc na ba nga xam ne waa sax yi dañ laaj yonente sallallahu alayhi wa sallam mu xaraamal seen xur wani mu xaraamalee makka mu ne wayn kaado naka jege nañu te si naka dina saani sa cioli saara away naa woyu nan fay lekk jëm teew ci taf sariya ngi na nga duur saxle naa waral nu xay rawal moom fi tan boobale nga defoon ko saxasoo ko kondañ kap sax xalilal kërisi taxam boo nan ko woon seen caaxaan yi rek i daal di la def xarit wala laa am sa mbat naaka gënte kon ak saxas yow sax bi sa jege kon nga kar kanu di jàngi dee jëm ci ñoom sayaan ak jàngi xaalis leen bu dee aji neew ko isan boobale nga ko defoon nag isan boobale nga jàngoon jëm ci ñoom as nag wala defalaayaa wadifa mamaati ak ku ne leen balam dee rek mala raj di soppi ak la ak ñaaraale naa war na si maa gis rek wayen kaa doo naka jege na ñëw day safi sa naka gis dina mel dara ci suuf ñu ne yonent génn mi dina dem saam foofa la yonent yee dëkk boo bëggee ñu gëm la ñu fa joofal gi nañu génn la minaa ci medina way san booba de dayal alfaka ci gannaaw bila xalil danga aji ñëw de waa topp ñu ala ko ñu sama xalaat sama mooy baa xam moom xam na ko jëkk ñu naa ci waa taji sëkk ak tamit taxawala salaata juróom soo fi sam si te wax dëgg yàlla gerte ba waaw naa ko soxla waaw ba jël waaw ak ak ak ak. julli suba ngoo dina ko raam fajri naka julli ci waxtu suba kan ma soo dali fekk de balaa kay bëccëg yi guddi yëpp fay fekk wataa jël julli mi na leen ci wataa jël julli ci ci moom ak bi ak alquran naa fi la tamit mooy farata la ka ñaan la bu guddee nag yow na nga naa fi la farata la yonent bi ci naa fi la ci kuréel moom asaa nga ma saka attan na ku mu taxawalanda ku mu fara ku faranda rab ka borom sama xaamam taxawaay maa moo doon bëri sant leen yàlla dana la fale lëg ci taxawaay boo xam ne ñëpp danañ la gërëm de mooy bam taxawee jarab cëppee jëm yàlla waxul waxal rabbi yow borom sama te nii yàlla nga xar sama martala xar ko ayab dëggal baax nii yàlla nga génne ma mu xëy si seen génn waayab dëggal de wajal defal lii ñel ma mi la dugg yow saan lay na si réew de aj fële ma waxul waxal jaa dikk naa làqu diin islam saaka dem naa baati lu kéefër nel baat dana kana mosuma day sa waxal de aji dem de waaw waaw na ci lu dana wasal mel xarit alquran maa walal moom si faawam saafara la warahmatu te yërmande in moom ina ñeer way gëm ña wala doli ti mu taalimin way weddi ña ilaa xasaaran rek karte rek oy taa anam naa def xeewal nanu ara lin taani ci yéefar ara la mu tëdd ba bañ a sant yàlla wana atam sori wana atam lem fi jaani fii ci wàllam ci fuugare de way daa ma saw lem jot na ko sorum ñàkk kaanan mosumoo day dawa san naa baa kon yërmande yàlla de kul waxal kul jëpp yaa ma la gën a mu jëf ala sakki fii ci yoonam bara bu kum borom seen ala mu maa jaxam li mën ko jaka moom adam sori sabilan ci yoon way sana ko danañu laaj taani rooyi ci roxo laaj ko yak jëf luy roxo taana luy xale yi nga xam ne dañ génnoon nga daay dañuy bési wuñ ak doxkat bi nga xam ne dox na seen ko xarfu yëpp ñu koy laaj ci roxo ak ahlul kafi ak sol arnay ni roxo lañ jëkkee yow dañ leen ne laaj leen ko yett yëpp su tontoo yëpp ku ab yonent su tontoo yaare wax ci mbedd ba waa ci yàlla kon ab yonent la su su boo xamee ne lot na ci tontu yëpp nag way ba tey waa ku ab yonent rek pour ne wayesal na ko danañu laaj daan roxo yi ci roxo ñu lay laaj roxo mooy li nga xam ne ci la yaram bi di dundee kul waxal roohu roo min amri rabbi su gën a ci mbiram borom sama de roohu mbiram yàlla la yéen xamu leen maa wut suñu joxe nee na li xam-xam yi daa xale dara ay néew xam-xam yàlla ba su tuuti la ci wane ne li ci def def ko nëb waaye ci naa doonte soo ko nanu na sa banna côté nu demee te si ilaala waaye aw yi dañu koy rek jëm ci yow mu daa taji saka ñeen la bi ci moom ale naa ci nunu wàkki nanu suñ joxe li ci jëm ci moom de indaalu fi nekk desal nañ ko rahmatan ngir ko yërëm waa bi rabbi ka but ko borom sa na xatla waa naka aw yiwam kan lay kabirandi aji mag alayka ci yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kul waxal lay ni tamaa ci doonte booloo woon na lim su nit bal ci loog ñaa laa jaatoo ci bu ñu dikk ci daal alquran ci kam ci daal alquran daa yaatu na dikkati ñu dund fii ci camam de ci tënk ci néeg yëpp dañ dajewoon bëgg a def lu mel ne alquran waaye duñ mën a def walaw kaa nag day nekk na baa bu ñenn de fayrandi aji ci mbileen yi baa dañ ci ñenn de asaab ci mbileen de sax wala xat saraf naa mu ndey ci den nanu dinaa fi ñaani daal alquran ci daal alquran liñ ko li masalin ci yëpp lépp de aba bañ naa këru naa si seen jëfëri yee borom akay laa ko koran dara di way weddi de waxaaloo wax nañu ne dan su na dëgg du lakk ci waata ko jira bal ba nga balalee danaa ñeelu mais dara gisu si makka yan koon ay balle ko ñu balalee ay sew yi waaw ci daw ci makka aw tànkoon yi gën ak dakk ñeela yow ci sa bopp waaw jana dun tool bi nax ilin ci dalarma wañe na bi nakkee na batu fa jira ta nga balal lan xaara yoon yoxi laala aji gëm tam jira ak balal waaw wala boog yow ki yàlla yónni nga xam dara boog yàlla yónni la ngay ci ci namulootu da nga am koori dalarma waaw ak koori xenam waaw yoon yee daw ci diggante ba ba xam ne yàlla la yéen aw daa ken garotal sama asamaan kama sa am tanaka nga ne ale naa ginoon kita wona ci togi wala nga tagga asamaan fi taana bi ci kaw léegi aw saake ki nga dikke bilaay yàlla wala malaayika de malaaka yi xabiri lan ci janoo de wala nga dem xoo yàlla mi la yónni bu ñëwal ba malaaka yi tënk ko maa dama yónni Muhammad kon kon lu mu yónni def aw yaa ko lay gën ak laka ñaala bay teeg ñu soxor bin jiwru wala boog mu defal la néegu xurus aw talxaay ka nga yéeg ci sama ay caasamaan wala mu defal la yëg kale nga yéeg caasamaan ñu janoo yow ba nga dugg ci asamaan sa wala ndoom yi nag dem ci nu gët te roq yi ko ci yéeg sa attaque si label ba taga wàccaale naa ci noonu kitaab yére naqara kanon jàng ko rek waaye yéegee ba ci asamaan yàlla bi nañu leetar su gën a ci man yàlla jëm ci abo jaale bi saam su gën a ci man yàlla jëm ci xot sa su gën a ci man yàlla jëm ci say bat ne yàlla bind ko leetar damaa yónni Muhammad waaw kay boo defee loolu nag ñu xam ne dëgg la kon waxal faan rab sama teel ak borom sama ndax nekk naa ilaa basara ndara di doomu aadama dootala di ko ñu yónni man yi yëpp ngeen ma ko laajee man waxuma ne yàlla laa dama leen wax ne yàlla ma yónni ma mën a terewut asa nit ña an yoom ñoo ñu gëmat yaa am ba diggale yàlla daa am jub daa am xaadoo dara wax dina faaso daaw ndax yónni na yàlla basaran doomu aadama rasul mu jóg yónni bul waxal daw kaana doon te nekkoon na fi dara gisu ala ay katim ay malaaka yam sunu yooyu dana ci dox bul nañ ne ci muñ di woy sax dana sol nag seen wàccaale ci ñoom ne sama ci jaatamaan malakan malaaka la sol mu di ko yónni de su fekkoon ay malaaka fi dëkk kon nga yónni keneen sa malaaka rek waaye ay sa fi dëkk moo tax nit laa yónni bul waxal kafaa doy na bilaay ci yàlla sey daf jaaj te bay di diggante sama ko bay na ku ma diggante seen ina woon naka moom pour kaana ma dañ xam ne daaj seen laa di jaam seen daaj seen de ko man yaa di laa ko yàlla foofu maal mu tani mu aj man yu lil kuréeral te ci def ak lawum ñeel na awliya way ndëngoo suñ doon yi dul moom de wana surum dana ko ngale jamal xiyaamat ci pencam yàlla ala wu joye ci kanam seen am yàtt mu ci way boobu ba bukk man am bi mu ci way lu ba su man am bi mu ci way tax de ma waaw faa seen jaanama jaanama ku la ma xabat fépp ku dalee waaw fépp ku dalee yàlla mu safaram ba dina am sal leen bayaran takk takkal leen daal di ko doon jasaaw mooy fay seen jaanam ci saab naka ñoom ko fa rawet nañu bayaat nañ kaw tesu waxaaloo wax nañu ñoom way wet tegte ay saaku naa dem nekk nanu insaaman di yàq xoru faatan te di way kuno dinaa naka nun dama ko man fekk lañu xam xam ak bind jàdd dina bu lay yeesam pour naa wala jaraw ndax xamutu ana laa naka yàlla te si yàlla mi nga xam ne xala xabit sama sama wàcc asamaan ji ba mu yaar wala wala turi ji ba mu yaar aajum naa jaar lamu ala an yaxlu ko ci mu bindan mi saw kam seen ba jaaxla def na mu law jëlana ajalan ji daaray ba dee sikki fii ci moom de waa ba bañ na saaj na way tooñay dak koran dara way weddi pour waxal law antum doonte naka yéen tam di ko na da ngeen moom fasaay na rahmati rabbi yéen tam di yermande borom sama idan bawale la am sax suñu konte ngeen nay xase ta lin faax kir ragal dundale de wakaana masa day insaanu nit xasooran dina yaa konde wala xalaate naa nu lay jamono Musa Musa di sa ayaat juróom ñenanti aaya ba yinaat nii di way de mooy xel wa ak loxo la ak baay fan ba ak njéréer ya ak walga ak mbotte ya ak jarat ya ak masax seen xalal ya waa mu nekk di ay daj ak ati décoré de parce que laajal bani Israël bani Israël laajal bani Israël ndax noonu daam de jaaw ba mu dikkalee leen moom Musa fa xaala ta wax la ñon ko firaam firaam na ci naka man daaw suka dana ma jot ko yaa Musa yow Musa na sooral nga di ko yàqam xelam waaye Musa ci ne la jàpp moo tax nga yowata ak yeneen ak yeneen yàlla judut man xaala wax sax ne ko la xalaalim sax xam nga yow firaam na an sala wàccewut aw daa yi nekk ak yow idaara bu sama waatit dara borom asamaan juróom yaar wala nekk suuf juróom yaar ba saa yaram bi ci xalam way ni naka man daa sunu ko dana ma jot ko yow firaam yaa firaam yow firaam na ma sooral nga aji xala ko rek firaam na jot na ne Musa ak njabara ko jàpp xelam dafa yàq kooku njortam mooy na Moussa moom njortam ci leer ak yàlla lay teer Moussa moom ne ko man jort naa ne yàlla la xalak rek soppi la wali lépp ñëw loolu njort mooy dëgg baaraada dana ma Firawna an yastafi sa um bu dina deen dina dal ci suuf si ni sax Firawna daal dina ne dana sàkkal te texe Moussa ak bani Israila waaw wax naa tan labal ko waman maa ñu ànd ak moom jam deen ñu boole ñu labal leen ca baaru xol soom lépp waxul naa tan wax min bani min bari ca gannaawam li bani Israila ñeel bani Israila uskuru dëkk leen lala suuf si fay saa jaa dem dikk na waa du laaxira di teel a saa su mu gisal ci naanu dikkee bi kum ci yàlla sant ngeen si mboole de ba fi xaq ci dëgg am sal naa loolu dañu wasal ko fi xaq ci dëgg na sal dama wàcc moom alquran ba maa sal naa ka nun lay yónni wun la dam dara bi day dëgg mu ngal jana kon firam say aji ragal la wa quraanam wasal nañu alquran farlak maaw waaw fasale nañ ko ci dem ñaar fukki at ñaxte ci taqrao gis na nga jàng ko xal naa ci nit ñi alaam seen ci ñeex de wala aa nga jàng ko ci nit ñi ci dem fukki at ak ñax waaw ndax ñu mën ko waaw gëm de wana sal naa wasal nañ ko moom alquran tam si la naag wasal de kon waxal amino gëm leen fii ci alquran awraatoon nooy gëm leen gëm suñu ne boo gëm suñu ne boo bañ a gëm loolu coupé la ne ne la dina naka ñaanee uti leen ba joxe leen xam-xam nañ xam ne jëg jëkkam saa yu saa dem def na jàng alay ñoom alquran yaxeloona dana ñoroon di la sànni ci saxana seen di jëlan ci wëri joo dégg ba yaxulo dañu wax san rabina nan seen la borom sunu waa kaana naka nekk na waa rabina da la borom la xoolan di suñu jëf ba yaxeloona dañuy rot di la sànni ci saxana seen def ko na mbir moom danañu jooy ba yesi dum dana mu doli leen alquran ku soowoon torox na yàlla bul waxal dafa ooleen daa yàlla aw dama isi leen foo rahman rahman rek tur yàlla yi waaw juróom ñeent fukk juróom ñeneen yëpp bu leen ci neex waaw kenn foo rek waaw kenn yàlla ji la ay yet dañ doon wax ne ñun de moom ak jaaxal yi bu ñu xoolee yàlla yu bëri moom yàlla yu bëri la am ndax tey bu xoo laaw tey bu xoo rahman pour ne xoo leen laaw wala ngeen xoo rahman ay yet naa tanoo kenn xoo loolu ñen ko la sama usul àlu sana way rafet moom waaw waaw ak juróom ñeneen yi nga xam ne waaw téeméer de dara benn ba ko matal téeméer moom lañ dëbb waaw mooy waaw tudd yàlla mag wa dem waaw ñeneen ci tur yi nga xam ne ñooy maatu tasmaay ñoo leen tuddee wala wala wala xar wala saar wala baat waaw ñamante yooyu ak jëm yàlla ja nga xam ne moo juróomeel muy juróom ñetteel saar ak baat ci fukk waaw ñu teg jëm yàlla ja nga xam ne waaw muy tol benn tol benn ci tafde ko ci ñetti téy waaw muy ñett fukk ak ñett de ñett fukk ak ñett ñetti yoon mooy juróom ñeent ak juróom ñeneen beneen yoon nga ko ci ngeen génne tudd yàlla yi waaw ci ñeneen ci tur yi wala tu xaafit wala luñu yàllu te aa ci tudd yi wax taxi sàkkul ay na salika diggante wala tajar bi ci dal di talaa digga ji jàng sax wala tu xaafit waaw yàllu yaa ci moom rek wax tax sàkkul bay na saa digga diggante googu la yàllu ak bale bi dal sa bi rek ko yoon waxul wax alhamdulilah cant yonent bi aji nag dañ ñaan yàlla te si yàlla mi nga xam ne da tax di jàpp dañ toog wala mu yàkku nekkul dafa ñeel ko sëriñ aji bakkaale fi mu ci fuur kon yàkku nekkul dafa ñeel ko wali ak ci mbële dina suñu ci toroxte ne bakkal bi mu màggal ko moom yàlla tak si tan ak màggal de dana wax allahu akbar wa allahu akbar wa allahu akbar daw sa del ala sidina Muhammad fatima kadi ci dajal sa wala yàlla fa mel ci dajal ma yàlla ñala baal la xonc lekk tam ni ba sik kenn ko la jamu ba ci dam yàlla bi ñu ma jëlam bi an rajim bismillahir rahmanir rahim اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما وصف الخاتم لما سبق ما أدرك الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وقدره العظيم ورضي الله تعالى عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوه الا بالله العظيم نعم الاساس الدنيا والقيام طريق الذين اخذوا بغيرهم jalaal bu njëkk bi jeex na dem jalaal ñaar lay jal moo tax ñu wax jalaalay jalaalu diinil mahilli mooy ki nga xam ne moo firi li ko dalee ci saaru kaaf bi ba ca naat ak faatihatul kitaab mu dee ba mu dee jalaalu diini suyuuti taalibeem la woon moo mottali moo tax firi li ko dara ci baqara ba jaxal israel li nga xamee ne ñaari jalaal lañ nag moo tax ñuy wax jalaalay ni kenn kenn walihu ak bu njëkk bi jeex na dem ko fii ci def nag ñu ngi dara ci kaaf bi ba ci naas ba mu jeexalee loolu mu tàmbali ci baqara ba mu tàmbali ci fatiha ba jeexal fatiha dee dog moo tax fatiha ci jalaal bi ñu ko féetale ca xaaj suuf ndax méngale firiñ gan fatiha kitaab ak li ko dalee ci kaaf bi ba ci naas bi jalaal ci ñun ay lii moo ko moo ko firi ba baqara nag bay jeexal lisraay jalaalu diini suyuuti waaw moo ko firi de moo tax ñuy wax jalaale ñaari jalaal yi jalaalu diini mahindi ak jalaalu diini suyuuti bismillahi sax may wax ma ci tuddu buur arrahmaani ka daa ci xewal bi naa buuf jaat yaa arrahimi ka daa ci xewal bi daa ci alaaxira alhamdu xaaji cant yanant daay aj nak la ñeel yàlla xaaji cant yanant ñeel na yàlla rek cant lépp ñeel na yàlla benn muy meloom wala muy jëfam yàlla man si yàlla li nga xam ne an solo wàcc na mu ara fii ci jaamam ba kii muhammad alkitaaba alquran de cant xam nga kum ñeel cant dëgg-dëgg ñi ngi ñeel yàlla ji nga xam ne moo wàcc alquran ci jaamam bi ñuy wax Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yëpp saaru lisraay dañ jàng mi ngi tàmbalee sabaal tey ñu ngi jàng saaru kaf bi mi ngi tàmbalee jant sabaal mooy ci du jant toujours ataa ci baax yaatu salixaat ngay jëkk a wax subhanallah sooga wax alhamdulilah lu tax sabaal mooy sellal yàlla ci gépp wàññëpp dafay saxal daal mat ak yàlla jant nag dafay saxal yàlla mat ci mat ba noppi mat ci ñeneen mooy xéewal yim tax keneen moo tax ba jant moo daraja sabaal wàcce gi ñu wàcce téere bi ci yonent bi itam ëpp daraja rañaane gi ñu ko rañaane de rañaane nañ ko jële ko ci suuf moom yóbbu ko ca kaw waaye wàcce nañ téere bi bàyyi ko ci kaw ñëw ci suuf rañaane nañ ko ngir motti ko moom wàcce nañ ci moom téere bi ndax mu motti ñeneen rañaane nañ ko ngir wan ko kaaw fi yàlla yi nuriyahu min ayatina wàcce nañ ci moom téere bi ngir daan mu ne di yoon si rabaak sa diri dan in la tunhu ba yu basiral mu'miniina rañaan ko moom dañ ko rañaane ngir wan ko kaaw fi yàlla loolu jëriñ lu yem ci moom la téere bi nag wàcc nañ ko ci moom ndax mu waare te dëggal ñi nga xam ne gëm nañ yàlla loolu njariñ lu jëm ci mboolem bindee fi de te njariñ lu wees borom jëm ci ñeneen moo ëpp njariñ loo xam ne dafa yem ci borom de moo tax be wàcce gi ñu wàcce ci moom téere bi mu jubal bindee fi moo ëpp maqaama rañaane gañ fa rañaane kon nag rañaan ma mooy jëlal seen darajaay matam wàcce téere bi mooy tayoo daraja yi matam moo tax yonent na ku xam lu xam-xam amal ko ñeneen aji màgg lañ ko tudde ci asamaan asamaan luñ ko tudde ku màgg lu mooy ku xam lu lëf amal ko ñeneen ñi ci àdduna ñooy màggal leneen waaye ci asamaan ku xam lu masala amal ko keneen rek dañu asamaan moom lañ ko wax màgg yi nga xamee nag ne rañaane nañ ko yàlla safaan na di ko rañaane tax yàlla mat na moom mi nga xam ne matal na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tey nag kii sant yàlla nga xam ne boo wàcc moom téere bi moom mi mat ci yonent lu mën a mat ci ñeneen sallallahu alayhi wa sallam cant nag ay xaaj la cant ci wax cant ci jëf ak cant ci xaal de cant ci wax mooy tagg yàlla tagg yu rafet yi nga xam ne moom la xelloo mënuloo ko lu may wax tam waxal boppam rek yonent sax wax na ko ne am ba lu ma lay xel nga def sa bopp kon nag jaam ci mën da wax lu may ne li yàlla wax nam ñu jàngaloon ca bopp fatiha xóodu alhamdulilah suñu waxee alhamdulilah daal kon sant nañ yàlla wax sant yàlla ci jëf mooy jaamu ko ci sa yaram boo dem seeti jaamu yaram yëpp ñu dee koor ak jàng alxuraan ak sikar ak waa xaj ak waa yëpp sant yàlla la tabi jaamu yàlla ci saxaal nag mooy yëpp ko xéewal bu bàyyi ko ci yàlla te saxam ngay fopp ci na nga ko fopp ci jëla gëdëm loo yàlla den amul benn cër kon su mooy nga di ko foppati ku jëla gëdëm loo yàlla ko yàlla ca loola cër waaw bu ñu nekk nga di ko fopp jëla gëdëm loo yàlla kon sant nga yàlla ci jëmm ji boo dem xéewal yi nga xam ne yàlla nga koy rotal ci yow yëpp te du jeex mukk mooy sawto da ci dikk rek ba dina ko soppandi ko jëla gëdëm loo yàlla mooy sant yàlla ci xaal de yàlla mi nga xam nag ne moo wàcce téere ba ci jaamam ba jaamam toog mooy Muhammad wala ni ñaata defu dafa téere bi ne wàccan ak firiente de te alquran amul firiente nii yenn téere yi am yi wax di seen toja ayiman bi mu aji jub in sira inna mu rakat sagandoo ci alquran toju déefëria tasan guwes sa dina mu aji sat fi la tuut dafa moom buñ fasira tam dëggal al moom yéen way gëm téere bi su ko yonent bi di njariñoo ne mooy mu waat bépp xéefar amal ko ne dana daje mbugal mu bàyyi ko ci wàllu yàlla ku gëm déggal itam képp gëm ne dana am xéewal waaw bàyyi ko ci boromam de mooy aljana de àlla si na ñaaña wala danañ jëf sari ati farat ak naafile ya ana la um naka aji naka la ñaa leen ajra na biyol asanan bu dee aji rafet maa kisi na mbit mu ngi way sax ci ca yoon booba abadan dafet mooy aljana koy in sira tam ragal doo àlla si na ñaaña xaaloo wax nañ ne taxasa laa jàpp na yàlla wala dan doo te téere yi itam yonent dana ci waat yéefar yi nga xam ne dañoo wax ne yàlla am na doom ñetti kuréel lañ yaaram bi yéefar yi yaaram bi ñu ne malaaka yi doom bu jigéen yàlla lañ yow ne masayru doom yàlla la saara ne Iisaa doom yàlla la de ñoom ñëpp nag dañ ci nar maa lahum jët ñaa leen fii ci la wax leen min xam-xam wala di abaayim du jaagen ñu jëkkoon leen de doom jooju ñuy wax waruñ ko woon a wax ndax nit war ta wax xamut te ñoom amuñ xam-xam ci doom ju doom jooju ñu àkkan yàlla den jamtal na maa la feet ñeel deel fii ci jàpp fii ci wax jooju min xel min xam-xam wala di abaayam du jaaget ñu jëkkoon leen jamtal na maa la feet ñeel deel fii jàpp ga toog min xel min xam-xam wala di abaayam du jaaget ñu jëkkoon leen de maa la feet ñeel deel fii ci doom ja min xel min xam-xam wala di abaayam du jaaget ñu jëkkoon leen de wax nañ ne yàlla am na doom waande wax jooju ñu wax waruñ ko woon a wax te xamuñ ca benn xam-xam te ñu leen jëkkoon xamuñ ca xam-xam te bu rat màgg na mu kalimatan ci baat tax ruju boobu dana génn mi ne waaye ko ciy gémmiñ seen kaa bee boobu baat ak màgg di sakal yàlla doom loolu ëpp na seen i gémmiñ de taxaloon nañ jom ak doom ci yàlla doom nit mën daa am doom lu mooy mu am jabar yàlla amul jabar moom kenn rek la doom itam koy soxla pour ndimbal yàlla soxla bu ko dimbalee bu nekkul rek tam na ma daal nekk doom danañ ko soxla ngir soo dee mu def sa gannaaw mel ni déew la yàlla moom du dee moo yàlla lu muy defee doom li nga xam ne ñàkk doom ay tëj wàññeeku la ci nit ki am doom wàññeeku la ci yàlla de tax na de war ñu mën a xàttan yàlla doom de Moussa ibn Imran na ne boromam ñaan naa la yow sama borom su ne na ko mbindeef yi wax ci man waaye ñu wax ci man fukk lu ci nekk loolu daal maa ngi la koy ñaan buñu ma ma dal mu ne ko Moussa moo may sama bopp moo ko may kenn de man sax wax nañ ci man lu ci nekk waxal nañ ma doom ma doom wax nañ ne am naa bakkaale anamu waxal nañ ma ne damaa nay waaw te man maa taloon sama yaari loxo bu dégg bëccëg dem nag man lañuy wax ci man lu nekk ci man yow Moussa doomu Imran ana foo jëlee ñu wax ci yow lu nekk ci yow de waaye wax ñu wax ci yàlla yàlla na ne baat la boo xam ne te seen i gémmiñ de waruñ ko wax de in yàq oo doona dee ci wax daa kasi ban ndaray nar dañuy fen rek doom nag ñaari xaaj doom doo xam ne judduloo ko waaye doom moom ba pare da nga jiw daal def naa ko muy sama doom ak doom joo xam ne yow yaa ko jur de muy xaaj ci yow bu ne yii xool yàlla doom ñaari xaaj lañ ñenn ñi dañ ne taxasalaa wala den ñoom waxuñ ne yàlla jur ñooñu ñu ne waaye yàlla doomoo na leen def na leen doomam moom la yàlla delloo ci man taxasalaa jàpp yàlla bi wala din doom jàpp kenn muy doom jaam rek mamata gën a foor Isa Ibrahim Musa ay jaam rek lañ jàpp jàpp doom ci dàq na ko ñeneen nag ne moo jut ne wala dala nag ne moo jut ne wala dalaaw moom lay delloo ci saar waxul wala aadun ne lam yalit ci du kenn dàq na yaay wax yëpp ci du kenn jàpput benn doom ne doomoo na ko moom yàlla bëggut kon nag ñi am doom daal duñ ci mer mer mu ndey in yaquluna den ñu wax ilaa kasiban la lay nar wala alaka taxte ne yow Muhammad baaxe woon ajaxalan ka nafsaka bakkan sa ala asarihim in jeyit seen lam yako in lam yomino dem ka muñu bi asar xaj ci la alquran asafan ngir ga jàq asafan ngir ga mer mooy yow yonent bi xeer gi nga xeer ci sa xeer gëm dana la xen ci boo xamee ne te dinañ bañ a gëm nga di ci jàq wala nga di ci mer bu la ci loolu fekk yow jotalal rek jotal moo la war bu gëm baax na bu gëmuti yow wàcc nga de inna naka nun jaal naa bind nanu maa alal ardi la nekk ci kaw suuf ci ndundat ak gàncax ak garab ak yoon dina tan muy taar daa ñeel suuf di nat boobu ngi nanu natu leen rek yàlla bind suuf ak li nekk ci kaw suuf ci taar yëpp mooy gàncax yeeg garab yeeg ndundat yeeg tabax yeeg yëpp yàllaa ko def ci kaw suuf rafetala ko suuf ngir nattu nit ñi nag ay wum kan ci ñoom axsanu moo gën a rafet xamal ci jëf de nattu ko xam ku ci gën a rafet jëf ci yéen mooy ku gën a dëddu àddina rek wa inna naka nun jaa la jaaxiloona way def lanu maa lay ala nekk ci suuf saxe dan muy pak jurusan bu dee aji wow de booleem suuf ak li nekk ci kaw suuf lépp yàlla dana ko fi jële de dana faagaagal yëpp ba suuf nekk waaw waaw téeméer bu ne fantang gàncax taxawatu ci garab taxawatu ci nit dunda ci kawam de du jaagen jaagen leneen dunda am xasibta ana asabal kahfi laajoon nañ Quraysh Nadir ibnu Haris ibnu Abdul Mutalib doomu bay tax yonent bi la moo gënoon a tat ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci mbokkam yëpp bu yonent daa jàng alquran di waat sahabaam yi dañ ko sakkaloon place boo xam ne fa lay daje bu toogee jot la alquran ba tasaaroo rek Nadir ibnu Haris daal di ñëw wuutu ko ca place ba daje léegi bëri naa leen ma wax leen ma waxtaanal leen waxtaan wu gën a rafet waxtaanu Muhammad yi xeretaan la woon daf daa dem saaf jënd xabaar yi rustum ak yooyu kali la wa dim naa alfu lay lesin wala lesin bu ñëwee di ko xabaar Quraysh naa leen lii rek la Muhammad wax saaba bi te jëmi des Quraysh xebal ko moo xam ne ibnu Asiis seytaane si Quraysh ñu dem ci yahood yi ne nañ laaj yahood yi mbiram Muhammad daal ba xam luñ ñu digal suñ ne yonent ab dëgg la ñu topp ko nopp suñ ne duut ak yonent nag ñu nekk ci liñ nekk bañ demee Medina laaj yahood yi yahood yi ne leen laaj leen ko yes yëf laaj leen ko roxo laaj leen ko ay waxambaane yoo xam ne dañ génnoon nga daaj jamono yu jëkk laaj leen ko doxkat bi nga xam ne wër na àddina yëpp dañ ko xar sa jor ak jamono su tontu yàtt yooyu parce ngeen xam ne du def yonent su tontoo yaar yi benn bi mu wakkil ko ci yàlla ngeen xam ne ab yonent la su tontoo yëpp it du def yonent ñu ñëw wax ko yonent sallallahu alayhi wa sallam ñu ne léegi nag suñ bi dag Muhammad jaax na benn ak rek a dox suñ diggante suñ diggante leer laaj ko yàtt yëf yëpp mu ne leen ëllëg ma tontu leen parce que wax incha allah yàlla nattu ko nag moom yonent wayu gi yéex fan ak juróom dina Muhammad yëngal màkka bu baax a baax nag na Muhammad a ngi ëllëg la ñu waxoon ci fan ak juróom a ngi gisuñ dara Iblis ko wàcc daay ci ñëw si ne ko bul waxati danaa def sa lëg nangam